day doon gàcce ci moom mm-hmm. moo tax mu teel leen alerté mm-hmm. ba pare li Moustapha kii wax dafa am solo li li li Serigne Saliou mooy mooy ministre yi leen man démb wax naa ko ku toll mel ni ku yor mel ni ku yor ay trophée de guerre mm-hmm. yow yow ku xasaw seen may mën a buso nee na ku xetam baaxul ah mais nan nga koy accueillir di photo ak moom en tant que ministre vraiment cest complicité bi Pastef bi joué foofu moom a jaaxal mooy ñii tamit am na ñoo xam ne ni ñoom ñoo leen di débauché. Mhm. c'est que militants yi aussi dañu war a waxal Pastef ci seen biir. Mhm. parce que ñan ñoo leen di seeti ji. Mhm. ñan ñooy dem di waxtaan ak ñoom ci suuf. li ay kaaw aji mbergaan ñaata nit lañ fa wane. c'est ça mais boo dégg da ngay ñu ne am na délégation bu ñëw bu yegg si. waaw léegi ñooñu waa Pastef yi dem di seeti ji gars yi ñoom ñoo respecté wul waa Pastef man quoi qu'on puisse dire. waa Pastef seen wàllu bopp ñoo war a xeex seen xeex interne mhm. mais lii dafay wane ni rupture bi ñu doon wax ñoom mhm. changement système bi ñu doon wax non c'était du mhm. te pour man damaa jàpp ni quoi qu'on puisse dire mhm. Ousmane am na ñu ko gëm. Mhm. am na ñu ko gëmoon am na xale yu ko toppoon. am na ay mag yu ko toppoon am na si ñoom dañoo sacrifier seen lépp toog foofu. jàkkaarlook ñii. xeex non xam nga sax ñoom ni ñu doon xeexee xam nga dafa ñaaw. si seen ñoom rek ñoo fi indi xeex boo xam ni dañuy xas nit. dañuy taal sa kër dañ lay yàq dañ lay feral te xamuñu la dañ lay sosal ñoom rek a ko fi indi woon waaye ñooñu boo retourné ñu def ko ñom ba amone mëna a ba mënatuñ dëkk da ngay xol les vrai pacifiens mm-hmm. mënatuñ dem grand place mënatuñ dem daayira ni sont plus à l'aise fep parce que mm-hmm. xex bi lu ne wax nañ ko fi ci ay kersa ci mm-hmm. ñak kersa wala bo yeewoo di revenirat ñi nga xam ne ni ñoom nga doon jakarlo kon motax mané ne Ousmane Sonko na na joxaat cër waa Pastef parce que au moins ñom dañoo porter won combat bi dem mu yobul len ci benen bi si moy euh élection ki dem bëgg ko gagner japp ni ni Pastef kasse moy dem ci liste boppam mm. lan lay doy ay transhumance vraiment transhumance nag Sénégal da koo bañ mm-hmm. nanguñu ko ko du lu baax Sénégal bugguñu ko ku ko def amul way mm-hmm. changer verbe amu ci parce que ñu ngi changer verbe bi mm-hmm. li Fadilou Keita wax ne ñii sont pas adhérents ak ay soutien changer verbe bi mënu ko régler képp koo xam ne ni sept mois huit mois yi bàyyi nga fi Macky Sall dem da ngaa war traite nga képp ko xam ne Macky Sall dafa la joxoon cër investiruñ la nga noppi toog sa wet da war kep ko xamne aussi da nga geler wala nga changer activité nan da ngay dem ci sport bi da ngay dem ci mm-hmm. lenen mm-hmm. da nga trahir parce que c'est sur la base de politique la la Macky Sall jëlee won mm-hmm. li taxone mu jël la politique la won donc Macky Sall bu fekkee dafa tok 8 mois ñukoy attaquer diko xex diko mm-hmm, saga diko mm-hmm. saaga di ngeen bayiko fa daw dem ay mm-hmm. warkat ngeen kon Ousmane Sonko aussi tamit bés bu demee bay waji dem da ngeen di dem donc motax pour man transhumance sénégalais da ko wara sax xol Idrissa Seck kenn ëpp ko xam-xam alliance sax Sénégal bëgg ko c'est-à-dire xam nga transhumance amna mais Sénégal parfois nga né man damay ah. allié pour ñëw ci réew mi tabax ñom dañuy bañ sénégalais mo bëggul ko Sénégal dafa fidèle ba nga xamné affaire wujje ni gis nga nu mu metté wujje affaire rivalité parce que am na si ñoom mënuñu accepter nekk ak jigéen takk ko lu yàgg sax dem utal ko beneen jabar am na ñoom mënuñu ko accepter dëgg la si wujje nit danaan la au moins euh, kii dafa war jabaram mm-hmm. parce que kii mooy aawam yàgg fa def le sénégalais moo bëggul loolu mm-hmm. bëggu ko bëgguñu sax ñaan allié la nangam nangam dañu ñëw majorité rafetal kàddu bëgguñu transhumance war war di seen ñi ko fi mos a def ñëpp seen histoire dafa fay mm-hmm. mais Ousmane Sonko nag man pour man boo nee nit ñi transhumance du am toog leen seen kër bu kenn ñëw bugguñu kenn defuñu kenn ba pare retourner waat di leen accepter damay japp ni ni yow sa walu bop denk le rew mom mom mo am problème ak mais ko wara defari ji ay loi mm. né assemblée nationale ngay dem def tête de liste té yow nga mëna taxaw wax mm. ñi li wax li ñi li ba pare retirer wu waat mm. mais est-ce que digne am nga am nga am nga confiance war nañ la jox confiance mm-hmm. parce que man kàddu googu moma jaxal Ousmane lool rek lañ d'accord ak mom mm-hmm. moy mm-hmm. transhumance du fi am deug la ñun ñep ñu tàcc nga retourner gennat ci ba set wicc ba pare ne sey militant aussi yeen tekki wulen dara man loolu la may nduru moy mhm. day wone ni seeni militant tekki même may Maimouna Bousso momu di wax bu Pastef nekkon parti bu normal may Maimouna Bousso du nekk ci position bobu mu nekk mom mom tam fa la parce que mom mom déjà xana dafa am transhumant première heure voilà mom tradi opportuniste la première catégorie dafa am première catégorie moy man ñun ñoo ñëk a ñëw bu keneen yegg si c' à dire loolu moma ma jaaxal day am ay yaayu passé wala Ousmane dafa xeeb dafa xeeb mag ñi ko jiitaloon bu may bu imam jaara Diarra Fam ñëwee barki dem ma ñu ne moy yaayam <laughs> ñoom Aïda Mbodj ñu ne mooy yaayam ñooñu mm. nekk nañ fi yaayu xalifa Sall nekk nañ fi yaayu Abdou Diouf nekk nañ fi yaayu ñëpp yaayu ñëpp te ñooñu bi ngay nekk ci problème yi di nekk ci difficulté yi ñoom nekk ñoom sa yaay ñu nekk ñoom kañ la yaayu Karim Wade maam Diarra du Karim moo doon yaayam mm-hmm. Mm-hmm. moom fils mu naan moom fils nangam nang kañ la mm-hmm. Ousmane nekk nekk yaayu Ousmane moom ci xaw a jaaxal di léegi nag bu ñu jëyee jëw may mun a busa lan la leen defal may mun a busa lan la leen defal may mun a busa moo doon jigéenu Karim Wade moo nekkoon jigéen fële ci Idriss Seck moo nekkaan keneen lan la liggéey ci liggéey bi ba tax na am na jigéen ñu newoon ci suuf man sekk bëgguma ko xeeb nit mhm. Pastefien yi tamit man comprendre duma leen loolu moo Pastefien si mooy c'est-à-dire yow waroo am ambition waroo mhm. Mhm. bëgg dara waroo sax xalaat yow da ngaa war a nekk dof yow c'est-à-dire waa ji lu mu la wax rek ngay def loolu yonent bi sax nanguwu ko woon Ousmane nee nañ yonent bi lay roy yonent bi sax nanguwul woon loolu ci am naataangoom yi yonent bi fu mu toogaan ak ñoom da leen doon jox bàyyi xel da leen doon déglu ci xalaat lu mu daan def da koy diisoo ak ñoom mais amul sax ci diiné li Ousmane def ni amul sax ci diiné té ku am dignité nak am responsabilité do nangu nga tabax sa kër ba paré mhm. am ño xamni ni féké wuñ ba ñuy tabax féké wuñ ba mhm. fondation après ñu ñëw mais le 17. Mhm. sanction transhumance. lolu lu leer nañ la sénégalais faw ñu sanctionner parce que dañoo sanctionner parce def limu def ci 7 mois yi musul am ci Sénégal. depuis l'histoire ba paré la promotion de de de de. anti valeur moy nit def joxe cadeau ba pare nga dem retirer ko mhm. marketing bobu ñuy dem di wëri ji def mhm. dafa ñaaw mais ci suba tamit nee na tal euh nek nen ne pank la mhm. dégg naa dama ko seetaan RFM matin waaw gars yi ne ko fadilu neena na Macky du tek fi tank lo xam ci lolu mu ne lolu Nafi sax mënu ko xam nga lolu dafa jéggi ton non tontu la xam nga xam xale bu yaru la xam nga tontu boobu dafa garaaw quoi. lu rëy la yaaji la laal. xam nga c'est-à-dire ko loolu na fi munu ko. Mhm. mooy maanaam bu doon man maay wax du ma waxee noonu. Mhm. xam naa mhm. loolu saat mënu ko. mais tontu googu muko ko tontu. waaw wax la ci biir wax. wax la ci biir wax. loolu sa naa munu ko. Mhm. <laughs> xam nga ne ko loolu na fi mënu ko loolu yaay mënu ko waaw da ne ko sa yaay loolu loolu xam nga dafa tudd turu ne loolu sa yaay mënu ko mhm. mooy maanaam ñu ko rafetale c'est-à-dire sa yaay di diis <laughs> waaw <laughs> mënu ko na fi dafa dafa dafa mënu wax c'est-à-dire xam nga yaay ni ko olof di tudd ni ko olof di day ne teggin boobu teggin boobu waaw teggin boobu nekk teggin boobu da c'est que même par xeex sax waaw di même xeex sax day am élégance ni mu defee noonu noonu la defoon may mun a busoo tamit ne ko mbegeeg cercle sax amoo ko ba mën dajale ay nit non maa ngi ko ciy félicité aussi moom ne ne parce que mm. taxawaay bi am li am géejawaay mooy taxaw dem jàppale Aliou Sall mm-hmm. jàmm ak njëriñ géejawaay gis naa ay fi ñu naan foo fake news la gis naa seen communiqué ay gis nga affaire li ma leen waxoon fii moo fi boobu jàmm njariñ njëriñ géejawaay mm-hmm. benn liste la pour toute mm-hmm. l'opposition ku naqari li nat Diop def ku mu naqari aussi booboy sa liste ah ñoom ñëpp nañu ànd foofu comme niñ ko defee fii Dakar loolooy dëgg nañu bàyyi seen yi ñuy def cest à nañu continuer négociation yi quoi hmm. parce que ñu ngi négocier pour retirer pour ñenn ñi retirer mais seen communiqué boobu moom vraiment nañu bàyyi seen communiqué boobu fake news la ah. communiqué boobu baax mais mais c'est pas ça mais nag mais nag dañ ko kii